suñu gan niñ leen ko doon waxee Mamadou Diallo la ancien international de football euh, du Diallo ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm di la ndokkale. ah jërëjëf euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mhm. di profité di nuyu Sénégalais yëpp. Euh, di nuyu aussi tamit waa TFM. comme seconde bi fii moom euh, sama tele la aussi. absolument di nuyu aussi tamit euh, sama grand Malick boo xam ne aussi tamit euh, dañu am relation yu baax a baax a baax. Mm. di kontaan aussi di ñëwaat si plateau bi. parce que jot naa ay appels yu bari yu dul jeex. surtout comme damay passé fii lu bari match football Sénégal yi donc ñu bari ils ont posé des questions. mais cette fois-ci dama demoon euh, Coupe d'Afrique bi parce que j'étais invité direct euh, avec euh, le président Hissène Senghor et Ablaye Sow et la fédération de football donc j'étais obligé d'être là d'accord Mamadou Diallo wax na ko moom mu nga woon fële ca Cameroun fekkee na lu bëree bëri dañuy bàyyi Chérif rek mu door waxtaan bi laata ñuy yaatal waaw kon leer na parce que moom consultant la mos a dënk muy coupe d' afrique coupe du monde mook ñoom Mame Fatou ak Cheikh Tidiane ak ñoom mm. Talla ñoo daa nekk ci plateau bi kon ñu invité la ñu gisoon na jege nga woon trop joueur équipe nationale dinañ ci ñëwaat mais noo dundee victoire bi. non victoire bi d' abord euh, mbégte lañ laa ko dundee mais mu nekk loo xam ne aussi euh, tey d' abord damay euh, profité wax François Gilles Bocandé mm. bi nga xam ne il tout fait pour le football sénégalais. je me rappelle euh, sama Coupe d'Afrique en 94 il était sama entraîneur la woon. aussi je viens avec Boubacar Sarr Locotte de même avion. qui était à Yaoundé. qui était ñu nekkoon sumay entraîneur. Mm-hmm. ma gis ce qu'on a fait pour le football sénégalais sacrifice yi ñu def pour le football sénégalais pour juste trophée bi. tey nga ñëw ku mel ni man Wade de Wakam gardien de but aussi il est décédé nga jege noonu ñëw comme Bruno Metsu comme Pape Bouba Diop comme Joseph Koto Euh, comme moom Mamadou Taw parce que pour man c'est très important ñu rappeler grand yooyu aussi mmh. absolument parce que affaire bi chaîne la ku nekk dafay jaar bàyyil sa morom jaar ku nekk dafay jaar bàyyil sa morom jaar mais ñun ñëpp suñu souhait mmh. moo doon étoile bi ñu doon ut nii tey c'était pas facile mmh. cherché nañ ko pendant des années des années des années et je pense que yàlla suturaal nañu si et tey ni ma mun a wax ce que je dis à Sadio bi ma toogee moom ba waxtaan ak moom. Mm-hmm. ce que je l'ai dama ko ne man gëm naa ne cette fois-ci c'est le bon même quand tu vois les vidéos c'est ce qui est donc d'abord c'est un plaisir aussi tamit peuple Sénégal dañ ko mérité. foo tegoon ne cette fois-ci mooy c'est la bon écoute tu sais man dama gëm ne génération par dix ans nga koy def général football noonu la demee tey xoolal euh, équipe yi nga xool yépp tey ñu gagné ay coupe du monde wala ay gagné coupe d'Europe xoolal bu baax a baax c'est des yoo xam ne par dix nga koy liggéey. tey jii boo xoolee génération ils ont fait combien ñoom rek ensemble def nañ presque trois coupes d' tey xoolal façon joueur yi si nekk nga xool aussi tamit suñu compétition ni mu de ni mu démarré souvent dañuy am ay compétition yoo xam ne dañuy commencé comme gaynde déjolé si terme bi terminé comme muus mais cette fois-ci dañu commencé un peu comme mousse mais terminé comme gaynde man mu vo kii boobu laa jël. Hmm. parce que dañu amoon ay difficultés bi ñuy dem. Hmm. par rapport ak le cas de Covid. par rapport ak blessure jour yi ñu am yëpp ngay xool entraîneur bi même day am problème des fois pour am effectif bi nga xam ne moom lay entraîner foofu am na yoo xam ne kenn mënu ko. génnee si plateau bi. Mhm. même des fois pour mu am jouram yu pour mu mat pour mu préparer. mooy bi gars yi nekkee Bafou exactement pour mu préparer équipe bi sax problème la donc situation yooyu boo si jegee di si génn nga si équipe bi muy dem ndànk ndànk ndànk ndànk ti seek da ngay xam ne équipe bi. day dem jëli ji euh, Coupe d'Afrique. Mhm. man sama xalaat parce que man aussi tamit j'étais sportif xam naa am na loo xam ne da koy sentir da ngay gis équipe boo xam ne tey. ci coupe d' Afrique day am les premiers tours day gagné match yëpp. comme Nigéria. exactement mu ñëw deuxième tour nelaw nga gis équipe boo xam ne premier tour day am difficulté mais si deuxième tour yi lay yeewoo parce que pour man une coupe d' toujours essayer de gérer mais si biir gérer boobu tamit defal le maximum ba nga xam ne say erreur nga koy nga koy nga koy rectifier. Mhm. donc. Euh, Diallo ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi lay nuyu ah, di la féliciter bu baax parce que gis nañu euh, yéen anciens yi seen taxawaay. ci wetu xale yi parce que dafa am solo ci moment yu mel nii wax nga ko difficulté yu bëri équipe bi traversé na ko defuñu préparation Covid bi décimé décimé équipe bi mais malgré tout ñu jël premier kenn dugaluñu bi ñu jàll loolu ay ay signe prémonitoire la mais au la de ça état d'esprit bi xale yi doon demee euh, yow mi leen jege woon am na loo doon sentir lan la exactement. tu sais que di nga gis groupe football bu ne. Hmm. discipline bi ma gis si xale yu ndaw yi. Mhm. respect bi ma gis si ñoom gisuma ko si benn équipe nationale. Mhm. parce que ni ku nekk da nga koy seedeel jikkoom. Mhm. xoolal Sadio maane ni mu wàccee boppam. c'est-à-dire yow bu la njël gisee c'est la première c'est mooy première personne buy ñëw si yow pour mën a toog waxtaan ak yow. Cheikhou Kouyaté c'est la même chose. Famara jeeju ay Bamba je le dis pas parce que Bamba c'est moom fils. parce que moo sama doom ay nekk. donc da ngay gis par rapport ak. ñoom ay Kalidou Koulibaly fi ñu toll te taxul ñu rëy parce que aussi ñun on est des internationaux. tey lu mu bon bon chef on est jeune dans le milieu pro. comme ce que je dis tey nit ñu jaay dara loo xam ne mun nañu jaaxal. parce que fi ñu nekkoon ñun dañ fa nekk. mais modeste. wàccee sa bopp seen bopp boobu. loolu ngay xam ne ñii dañuy dem soo ma jox la exemple demi-finale yi. biir Versailles bi équipe bi gagné ba pare jour yi dañu waroon ma. da ngay mais dañ commencé feetu yaa euh, comment ça s'appelle Cheikhou dafa yuuxu Sadio yuuxu ne fii benn kenn du feetu parce que dara xewagul parce que coupe bi rek moo tax mhm. donc ça dit état esprit boobu ci mhm. sens ne ñii dañuy dem jëli ji coupe bi mhm. te ñoom da ngay xool seen parcours fi mu jógee dafa sori depuis finale contre Algérie donc je pense pas que ñu dem deux fois finale ba pare war a perte finale bi malgré que ndëkk c'était pas facile parce que équipe bu équipe la boo xam ne presque c' est des joueurs locaux yu jouer seen même championnat. Mhm. Jamalek ak toutes les équipes équipe yu bari yoo xam ne Al Ahli foofu la ñuy jouer. Ahli national du. c' était pas facile mais quand même équipe bu Sénégal bi boo leen jegee ngay xam ne ñii coupe bi moom mënul woon mënul woon romb. Mhm. mënul Euh, euh, Mamadou ma Mamadou Diallo euh, waaye yaa ngi doon wax sànq nga ne wàllum discipline surtout ak modestie bi mhm. moom moo tax xaj na moom nga gis ci équipe bi mhm. yéen yéen ñi génération yeneen yi amoon ngeen tamit njàmbaarte amoon ngeen ko amoon ngeen xarañte ci wàllum football et tout en dehors de modestie bi nga wax sànq ak humilité beeg discipline bi qu'est-ce qui fait la différence ak équipe bi qu'est-ce qui a fait la différence chance bi xale yi am ñun amuñu ko man je pense que Malick mun na xam wàllu ko xam histoire football Sénégal mhm. j'étais j'ai discuté avec Amar ñun dañ daan football regroupement jot ñu yóbbu ñu stade amitié dañ da nga daan monter maam Fatou def na si interview da nga daan monter pour yéeg si kaw ci y avait deux jeux de maillot mhm. bii danga koy entraîner footaat beneen bi ci même pas des primes de match yu mën a tax ñun bi ñu demee ba nekk pro mhm. bu ñu daan ñëw dañ daan indi ay ballon wala indi ay matériels yoo xam ne équipe nationale amu ko woon man personnellement ku mel ni Souleymane Sané ak ñeneen ak ñeneen dañ daan fayal suñu bopp billet pour ñëw pour footballal équipe nationale. Mhm. wax naa ko parce que amoo woon amuñu woon moyens donc ça dit ne boo xoolee équipe nationale bu yàgg ba. Mhm. ak bii dafa ute. parce que bii les toutes les conditions sont réunies ñun les conditions n'étaient pas réunies mais quand même mhm. patriote bi moom moo fa nekkoon. et donc aussi tamit football bu ko kii la ëpp moyen kii la gën a organisé wu. moo la gën a taxaw. si plateau bi mus naa fi jàppanteex suma xarit Amadou mooy euh, bi Amar bi yóbbu équipe bi. Mhm. mais ku nekk da nga leen di nangul sa sa fédération dañu avancé. Mhm. quand di que dañu avancé da ngay xool ne li nga xam ne détails yi nga xam ne moom la équipe daan tax muy perte dañ ko def tey. Mhm. mooy dañuy teel a voyage. teel a dem xool hôtel yi teel a xool condition yi jour yi nekk parce que détail par détail moom moo lay gañaloo compétition problème prime réglé nañ ko ah, depuis euh, exactement ci wax ci patriotisme bi gis nañ ne euh, bon yàgg nañ la seetaan fu mel ni MLS di championnat États-Unis nga am fa taxawaay bu mucc ayib aussi di fettali ne jëloon nga fa meilleur buteur bokk ci premier africain yi nga xamante ne euh, teewal na fa continent bi nga amoon ay opportunité toog terewul nga ñëw Sénégal ndax lu mel ni consécration bi moom nga doon waajal mais xam nga man ce que dafa am ñoo xam ne si ñoom laay roy mhm. man sama premier roy c'est François Gilles Bocandé mhm. tey mun dem nañ en 94 balaa may ñëw si question bi. ñu football coupe d' Afrique côté 94. ma jege Maroc war a ñëw rejoindre équipe bi à Tanger bi ma ñëwee Tanger ñoom ñoo amoon droit si man sama président club moo doon garde corps roi Hassan mu demandé leen ndax di ngeen ma mun a may pour jour bi footballal ma final coupe de Maroc ñu may ma ma football final coupe de Maroc bi équipe bi jiitu ma ñu am match le mercredi. man ma jël sama vol dimanche gagné coupe bi jël sama vol di ñëw entraîné mardi bi ma entraîné mardi mercredi ñu war a jouer contre euh, Guinée boo leen xoolee poule boobu Guinée Ghana la ñu woon. Hmm. Ghana gagné euh, kii Guinée ñu war a daje Guinée il faut que ñu gagné pour éliminer Guinée ma ñëw match boobu bi ma ñëwee fekk Boubacar Sarr la ko ak ah, François Jules Bocandé am problème toog di waxtaan kan moo war a démarrer parce que man maa mujj si si si groupe bi ma ñëwee ma fekk lañ tax may leen continuement may leen comme je maa ngi doog a ñëw si coupe man bu ma leen jone si dara bàyyi leen ma toog xaar si bant da kii boobu du ma ko fàtte j'ai senti que libéré naa leen mm-hmm. ma libéré leen bi ma leen libéré ñu ñëw si match bi ñu joué contre Guinée boo xoolee Guinée moo ñu mën a woon 1-0 avec Titi Camara moo dugal après ñu jékki-jékki alimal am penalty ñu égaliser deuxième mi ma jóg si banc bi commencé échauffé wu te kenn newu ma échauffé wu bi ma échauffé wu ñëw fekk François Jules Bocandé ñëw ne ko damay dugg mu ne ma non mais yow yaay kan ba da ngay dugg parce que si kanamu jour yi ma ko defee la mais j'étais confiant. wóolu woon naa sam bopp ma gis ko avec son intelligence mu oo Boubacar Sarr la ko ñu ngunu ngunu Boubacar Sarr ne ma non demal continuer def sa échauffement pour tout masquer ma dem defi ji échauffement bi cinq minutes après ma ñëw ñu changé si laay dugg di jox Souleymane Sané pardon euh, kii Atanas nag muy dugal mooy bal bi may debo di koy jox muy dugal. François Jules Bocandé bi ma bi tasee mu fekk ma biir Versailles waxuma dara ñu ñëw fi ñu war a lekk di di di di reere bi mu ñëwee mu fekk ma fi ñu toog mu massacré ma devant tout le monde lu ne la ma wax ne ma yow yaay kan ndax yow yaa lu ne il m'a tout dit Mamadou Mariam Diallo okkat ma bugg tontuwu ma ma jël dem dugg ji sama nekk bi ma duggee sama nekk à cinq minutes mu ñëw fëggaat sama néeg bi mu fëggaat sama néeg may ma ne ma ubbi jàkkaarloo ak ay rastam mhm. ma ne ko mais man ma ne kii lan bu may wax leneen rek may tàkk mu ñëw jox ma loxo ne ma je suis trop fier de toi ci as montré que tu es lion donc ci sais que ces mémories yooyu mhm. yooyu daf lay daf lay jox doole ba nga xam ne loolu moo tax ma nekk moo tax ma dellu saat Sénégal parce que équipe nationale Sénégal daf ma jaraloon lu ne aussi tamit ñun dañu war a gëm ne dañuy dem football ji mais dañuy ñibbisi suñu dëkk te même boo nekkee sa club da nga war a xalaat sa dëkk parce que tey jii li ma def pour l'équipe nationale moo tax tey ngeen reconnaître ma Mhm. li ma def équipe nationale moo tax tey nit ñi fu ma dox ñu xàmmee ma mhm. tey bu ma demee ba bokk si trois wala quatrième meilleur buteur de l'histoire du Sénégal c'est une pour moi et c'est ce que je peux donner Sénégal parce que lu mu métti damay ñibbi sama dëkk. Mhm, Marcel. victoire bi peut-être ki nga xam ne mës naa toog critiquer critique bu sévère. Aliou Cissé wala joueurs yi mun na ci gis boppam parce que peut-être jëriñ na leen. yéen anciens yi am na ñaari séquence bañ a bokk wala bañ a jege. Mhm. ak séquence bi ñu mujjee gis ngeen jege encadrement bi peut-être am am cër sax ci joueurs yi. Mhm. la question mooy confort est-ce que confort bañ a jege nekk ay consultant avec des critiques objectives mais ak nu ko encadrement mën a jëlee wala seen contribution mooy nekk ci biir équipe bi. pour distiller justement genre message comme euh, séquence bi nga xam ne ni wax nga ñu ko te xëy na gis nañu euh, compétition yi passé yeneen pays joueur sax ñu bëgg génnee mu bañ euh, ne du génn par exemple xam nga euh, ñu bàyyi xel ne équipe nationale foog ñu xam ne aussi du marché même si on est des internationaux tey jii équipe nationale dafa am organisation te sa organisation lu ñu nekk ay international international am nañ fa droit mais dafa am limite parce que tey télé bi ngeen di liggéey nii lu fi journaliste si bari sa émission dafa am noo si ni du di demee loolu c'est très important tey tu dis wax nañ critique kenn mënul nekk si bopp si tête si bopp te nit ñi duñ la critique critique nag dafay dafay nekk si xalaat comme mun na positif comme mun na négatif parce que y a de certaines critiques yoo xam ne moom moo lay yee y de certaines critiques yoo xam ne c'est personnel man li ma contre mooy mu nekk critique yoo xam ne c'est personnel. amoon na ci wala. waaye ah non Sadio ne moom laa expliqué football ku nekk sa opinion man quand je fais des critiques comme ce que je l'ai fait ici man damay xool le jour du match lii Sénégal joué ah li mu def ma wax lii bon ah lii bon kooku c'est une obligation demain nga ñëwaat mu joué waat beneen critique beneen kii beneen analyse nga war def léegi nag les analyses. le Sénégal li ñuy jowaarle mooy tey mun naa ñëw ne la tey euh, terme bi xamoo dara xam moom xamoo dara waruma la ko wax je peux dire ne ça n'a pas marché aujourd'hui pour toi nekkul woon ce jour léegi Sénégal bi day jàpp ne rek tey diw ne na la xamoo dara mais tey loolu mun na am mais suba li ngay wane mun na uteex li nga wane tey ji donc ça dit après ñun il faut qu'on prend affaire yi ci sence bu xaw a xaw xaw a positif tey Aliou Cissé critique yi gars yi doon def ñëpp am na ñu def critique yu yu saf nag yoo xam ne c'était pas mérité parce que quand même qu'on se la vérité aussi ñun ñëpp one des internationaux mm-hmm. tey man yaa des choses yoo xam ne permettre wu ma ko parce que bu dul dara maa moom son premier match c'était Sénégal Côte d'Ivoire mm-hmm. je l'ai intégré dans l'équipe kon am na yoo xam ne man permettre man permettre wu def ko Aliou son premier match c'était en Sénégal Côte d'Ivoire. Mm. Aliou son premier match mu ngi mel ni démb man maa ko yan paan bi di koy tooñ fii Méridien ne ko paa bi nee na yow yaa. di ko di ko di ko tooñ. donc ça dit am na yoo xam ne man permettre wu mais du trait aussi si ça ne marche pas dama koy wax ne ko ça ne marche pas. parce que si si loolu avec la si loolu su waay si loolu lay mën a xamee li muy def. Mm. maintenant disons il y des gens yuy wax de certaines choses je ne sais pas leur nom. mais li ñu doon def parce que ils étaient très patriotes seen patriote moo xër ba ëpp kon nañ ko jëlee loo xam ne lu positif la. sa baax na boo xoolee gis naa ni ubbeeku na même yéen les anciens là jege woon ngeen jour yi à un moment donné yàlla dañ leen a bunkeriser woon muy yow gis naa fa ay Alassane Ndour bu match bi jeexee yéen a ngi ci vestiaire yi et ça c'était bien. mais je di que gis nga critique yi critique critique yi doon am il faut que Alioune da si da si màgg ce que j'ai vu si Alioune pendant six dafa toog jàng loo xam ne kenn jàngu ko fi mais aussi mu nangu ne ñun may nañ ko loo xam ne kenn mayu ko mm-hmm. il est le seul entraîneur bu Sénégal may pendant six ans mm-hmm. amul benn entraîneur bu fi mus sa toog pendant deux plus de deux ans mm-hmm. léegi nag si biir yooyu mu doon li mu toog noonu yëpp am na lu bari mu si jàng tey Aliou Cissé dafa am expérience boo xam ne dafa ouverte même si les journalistes Aliou Cissé c'est-à-dire sa liggéey bi ngay nekk nii si ngay gagné l'expérience. Aliou footballeur la woon. ak mm. maturité il a beaucoup changé. ak maturité il a beaucoup parce que ah. ay jamono boo ko musaan critiqué sax boo ko rombee boo ko nuyoo mën na laa bañ a fay. <laughs> mais léegi comprendre na ni ñiy wax yëpp lu baax lañ ko bëgga ce que man li may bañ rek mooy euh, nit loo koy wax rek na wax ji di rafet. Mm-hmm. ndax ëllëg moo tax. Mm-hmm. absolument man tey aujourd'hui tam dama nekk si direction technique équipe nationale mais des fois y a des gens yu may wax sax ne lu tax doo wax. parce que lu tax doo wax télé te da nga doon wax man même quand j'étais obligation de réserve. exactement mënoo nekk ci direction technique yaa ngi bitt sa nekk entraîneur ba pare. am na yoo xam ne bu ma koy wax si biir laa koy waxe ah. mm. mais même bu dul loolu sax même bu ma toogoon si plateau am naa éducation boo xam ne dama football dama nekk pro je jamais jour ko ne defoo fi dara. Mm. mot bi may utiliser mooy du sa ce jour. et nañu xam ne l'analyse de match d'aujourd'hui et de demain du benn. tey jii bu leen neexee ngeen xoolaat samay vidéo yëpp. nga xam ne bi ma demee Coupe d'Afrique bi j'ai toutes les journalistes dañ doon ñëw si man tous les jours après les matchs mais toujours j'étais très positif même bu dul positif bi xam naa ne li ma leen wax loolu mooy am suba. ragaluma mais dogu ma la de nga baal ma de dogu ma la si biir loolu li ma si gën a metti par rapport les journalistes mm-hmm. que mooy bu bu doxulee rek. Hmm. la ñuy ñëw vers toi bu doxee après doo leen dégg c'est-à-dire ne quand il va des bon des informations yoo xam ne il te pousse que pour nga wax loo xam ne désolé li ngay poussé loo xam ne nga bu nga wax loo xam ne lii c'est pour danaan bëm. mais journalistes yi demoon na quand même ñoom it ah ils ont fait. non non mais je euh, dis boobu loo gis moo fi kenn ku fi génnee mboot wala lu def lu yàq. équipe nationale non je dis dama bëgg mu clair parce que télé laa xëy dama ne je donne des exemples que les anciens internationaux que les gens que tout le monde liggéey bi laa la bëgg a wax ni mu demee. man exemple bi ma nekkee foofu je faisais tous les jours mm des interviews dans les télé et tel et tel parce que les moments là c'était difficile dama urgé pour def ko mais après bi mu commencé dox ça fait moins des interviews kon nañ nañu waxante dëgg c'est-à-dire il faut qu'on avoir l'esprit de très positif. moom moom coach Aliou Cissé sax président Macky Sall waxoon na ko ne ko moom liggéey rek la ko sant bu mu déglu wax ji xañ xañ na aussi loolu la doon topp depuis le début. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est ça. Chérif euh, euh, euh, avant dernière question damay rebondir rek. parce que tey ku ne Mamadou Diallo sa xel dem ci si sa doom di di Samba bëri woon na ñu ko doon laaj ci formation bi parce que gis nañ ne macha allah bokk na ci xale yi ëllëg war a yor footballu Sénégal. Euh, ci loolu lan nga doon tontu ñi ko doon xaar ci équipe nationale ci for kii sama doom bi di football. Mhm. non buuba euh, sa sama doom la man du ma bëgg di wax sax sama doom parce que dama ko xamal ne ko tu que ñun dañu jaar fu sori ba ba ñëw fii tey fii ma jaar moom mënutu fa jaar parce que transel naa ko terrain ba pare tey lu ko même bu ko nit ñi di tudd sax par rapport sama tour moo tax ñu koy tudd mais dama ko ne ko essayel nga rey sa bopp pour mel ni ñëw ami xaritu Bamba Dieng la parce que looloo gën a tax ma xam Bamba parce que daam Bamba sama doom la day ñëw kër mm. mais actuellement nekku fi parce qu'il a décroché un contrat pour dem aux États-Unis mais je lui dis na def ndànk-ndànk mm. chemin bi dina ñëw parce que football kenn jarul jarul mm. demal petit à petit bu sa temps jotee a dugal mm-hmm. laaj ko ci moom Mamadou Diallo ñu euh, mm-hmm. euh, bi nga xam ne raté na ko ñu seetaan ko ñëwaat bul Sadio Mané genre rattrapage la ko def ndax moom moo raté woon penalty bi à la troisième minute mu def rattrapage bi euh, ban yëg-yëg nga amoon Mamadou Diallo ci instant boobu noonu que ça soit bi mu raté ak bii nga xam ne dugal na ko délivré ñu ñun ñëpp. ok xam nga Sadio. Mhm. man bokk naa si ñi ko njëkk a critique pas critique def ay analyse si moom. Mhm. si ay affaire penalty parce que bu daan dóor penalty yi euh, bi mu ko daan jox. au début daawu ko jox. te penalty bu fekkee danga koy dóor te joxoo ko gëdd dëgg boo ko ratee rek nit ñi dafa am lu ñuy wax. mais bu fekkee booy dóor da nga ko jox gëdd même boo ko ratee nit ñi duñu am lu ñuy wax. penalty ma ne ko waratul woon laal penalty yi parce que penalty yi da ngay am habitude di ko dóor sa club da ngay am di ko di ko mm-hmm. je pense que mooy li may expliqué ñun bi ñu waxee loolu ci sànq Sadio Mané même boo déggee ay vidéo am nee na dem na dafa demaat di di di dóoraat di dóoraat Sadio ne am na lu mu jàng sox yooyu mm-hmm. mais deuxième penalty bi man je savais que da koy dugal. je sais parce que je savais ne du ko raté. mais ñun ñu ngi seen ginnaaw. mais lan nga yëg instant précis bii ba saajo jëlee bal bi teg ko ba war koo dem dóori lan nga yëg instant bii nii nii. non instant T bi dama ne. bi Sadio jële bal bi Moussa la yooyu jooy. laa de xam nga du ko raté mais alors fu may fu may jeexale rek euh, Chérif moo di. gis nañu ubbeeku bi nga xam ne ñi ko doon wax léegi les anciens ubbil nañ leen ko ngir ñu gën a jege tanière bi mm-hmm. Boubacar Sarr euh, li mu bokk ci association bi moo tax ñu yóbbu ko mm-hmm. yow yaa ngi fa Euh, gis nañu El Hadj Diouf mi nga xam ne ci association bi la bokk mi ngi fa Cheikh Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Seck nga xam ne mooy seen président mi ngi fa Alsane Ndour mi ngi fa mu mel ni am na ubbeeku bu nga xam ni gën a am loolu moom daf may pousser ci li ma wax toujours di leen ko kaasal muy le statut de l'international mhm. ki nga xam ne dafa mos a muyee mayo équipe nationale mhm. am na gëdd bu ñu ko war a jox Sénégal bu nga xam ne joxaguñ ko ko est-ce que jotul tey association bi taxaw ci loolu ba fu Roger di taxaw Mamadou Diallo taxaw fa keneen taxaw fa ñu xam ni kii mooy diw reconnaissance bi ñu ko war a jox ak gëdd bi ñu ko war a jox ak yombal yi ñu ko war a yombal ci ak accéder ci yenn infrastructure yi mu mën ko am. mais Malick je suis entièrement d'accord avec toi même boo xoolee ñi dem internationaux yi ñaari billets la ñu yor. ñaari billets lañ leen jox association bi waaw ci association bi te tey pour man suñu combat dafa war a nekk loo xam ne bés bu mat équipe nationale amee. en Coupe d'Afrique war nañ mën a am minimum dix billets parce que dix billets yooyu c'est le minimum parce que tey aussi ñun ñëpp on des internationaux dafa metti nga rey sa dëkk def lu ne sa dëkk ngay ñëw estat ñu lay téye tey man damay wàcc aux États-Unis waaw yow la gis nii ak Sadio Mané. c'est ça exactement <laughs> mooy vidéo bi laay expliqué. Mhm. Ah. donc man damay ñëw wàcc. Euh, <laughs> États-Unis nit ñi daw ko koj ma dëkk bu mu wàccul daw koj ma sa dëkk Sénégal rek ngay wàcce kenn du daw koj ma kon c'est-à-dire internationaux hmm. ñun xamaguñu valeur am hmm. ah, donc il faut ñu jox ñu respect boobu mais ñun tamit suñ boppa il faut que ñu jéem a gën a organiser wu hmm. parce que Malick pour ñun suñ problème bi ñu am c'est question de manque d'organisation après lan moo si am ku si nekk personnellement yow yaay demal sa bopp parce que sa personnalité parce que sa fulla wala sa fay mhm. parce que man am na loo xam ne boo ma ko joxul damay dem jëli jiko mhm. parce que tamit liggéey naa fi loo xam ne man maa ko moom aussi mhm. euh, euh, nga euh, analyser tamit série tir bi ci boobu laa bëgg dellu si série tir au but bi ñu gis na ne joueurs yëpp les tous les cinq joueurs on tiré sur le même côté et que d'ailleurs gardien bi à chaque fois à part penalty Bamba bi Tout le temps, il est allé sur ce côté-là. Quel a été le secret derrière ce, cette stratégie-là Est-ce que du woon tamit risque parce que gardien bi waaw bon loolu beneen <laughs> beneen détail la parce que gardien égyptien bi tout le temps il suivait l'action euh, et puis boobu première la deuxième question président Macky Sall mu ngi wax waxu euh, demi-finale coupe du monde pour ñu yegg fa est-ce que tamit loolu teelul pour ñuy euh, projeté wu ci genre événement yu mel ni parce que tamit coupe du monde bu ñu fay yegg ce sera la fois ñu koy ñu fay nar a dem est-ce que teelul tamit waruñu jël encore une fois fi ñu jaar ba yegg si fii pour mën ci def euh, jàngat ngir mën a bañ a commettre les mêmes erreurs du passé. ok merci maa ngi tontu sa question bi parce que aussi tamit euh, bi ma nekkee fële damay suivre seen plateau yi gis naa léeg-léeg ma dóor dàll sama gars yi aussi tamit quoi <laughs> yooyu ñoom maali ga gars sa c' est bien je pense que àdduna moom ni ku nekk da ngay wax wax sa opinion xalaat li nga xalaat euh, xam nga tiro bii penalty yi naxante la mm-hmm. cest à ne yow jour mënoo taxaw rek ne angle bi laay dóor exact d' abord booy déplace d' abord mun nga am idée ne man fii laay def abal bi mm-hmm. mais balaa ngay départ war nga xool position gardien bi parce que boo ne fii laay dóor gardien bi nga dóor ko fa xam nga da koy jël war nga xool position gardien bi gardien bi aussi il était très intelligent parce que gardien bi boo xoolee pratiquement bal yu bari côté droit la dem parce que li tax mu dem foofu parce que xam na ne am na lol relance bu gudd danaan damay jël risque parce que sur cinq tirs de pénalty yi c'est sûr que deux dinañ ko dóor côté boobu minimum am na gardien yoo xam ne dañuy taxaw xaar la tamit comme ni ngi leen di naxee noonu lañ lay jéem a naxee mais je pense que gardien bi mu def il était très très intelligent. joueurs yi aussi tamit bi ñu doon dóor dañ doon xëccoox moom parce que penalty xëccoo la xëccoo mooy yow danga may jéem a ndax dama lay jéem a nax et donc je pense que à part le penalty de Bouna ñëppay raté mais Bouna dafa wane ne carrément fii la ko bëgg a def te oor ko bi muy daw bu sigg woon dernière minute. dina gis gardien bi déplacé wu na foofu bu yàgg da koy da koy da koy contrôler. Mm, ok Chérif dernière question. oui benn audio boo xam te xam naa veillu match bi. Mm-hmm. nga ko partagé ak les joueurs. Mm-hmm. loo leen ci wax. je pense que audio yooyu c'est c'est c'est très bien des fois de les aussi même les vidéos pour la prochaine fois parce que euh, man damay déggu jour lu bari surtout Koyaate. Cheikhou. Mm-hmm. Euh, tey yor naa sama portable ay audio yoo xam ne Cheikhou la premier des choses dama ko ne Cheikhou mu ne ma waaw ma ne ko one est dans une coupe d'Afrique kii ne pas facile et cette coupe d'Afrique là pour ñu gagner ko il faut avoir un bon environnement si biir environnement foog mu baax si biir environnement bi na nga xam ne yow mun nga nekk jour boo xam ne mun nga démarrer match ci quatre-vingt-dix minutes te doo fa def dara mun nga ñëw en vingt minutes nga def différence mooy match bi muy dugal. Mm-hmm. et je l'ai dit la veille li ma ko wax noonu moom la yàlla def mu am. beneen bi ma ne ko cap être capitaine d'équipe dafa am ñaar am na koo xam ne day takk brassard bi am na koo xam ne capitaine d'équipe si biir terrain bi la. Mm-hmm. ma ne ko yow leader nga parce que fii nga jege sa. sportif en tant que sportif dañ lay yab. tu as trouvé les mots justes. les mots justes parler quoi. mots justes tey pour que nga mën a dugg si terrain mu ngi mel nii tonton laay jaw laay mm-hmm. laay loo mer mer mer mer. bu ñu jegee si leen mm-hmm. et aussi dama si capitaine c'est un leader mm-hmm. c'est quelqu'un de très respecté très positif mm. très positif dina ko partager parce que cadre yooyu man sérieusement booy mënuma leen fay quand di dis que leen fay respect bi ñu ma jox cër bi ñu ma jox moo tax man dama ne woon dutewuma si ñoom parce que dutewuma si ñoom il faut nga nekk seen environnement tey mënoo yor alal ji nga yor nekk vedette bi nga nekk nga nekk calme yaa may dégg xam sa bopp xam li ngay def yëpp pour man il faut que nga am les épaules si yow. Hmm. et je pense booy yi ñu jël nii mais dañ ko imité dañ ko mérité. tamit eh, eh, eh, ah il est il est il est il est 9h il est il est 9h19 on ne peut pas faire il est 9h19 non non il est 9h19 Chérif Chérif Chérif c'est pas c'est pas ce n'est pas à toi de distribuer la parole rek leen dégg nga li ma la wax. Sénégal la je te l'accorde Ibou euh, Chérif euh, voilà je te l'accorde Ibou ah, Sénégal Égypte et puis pour terminer Mamadou Diallo ñu libéré la nga dem. lan ngeen koy waajal. Chérif noppi mais soxna si man mot tey toog fi tey plaisir. la parce que yéen a may yee samay nelaw dèjà dama sonn Chérif di ma yëg. da ngaa sonn mi ngi noonu moo tax nag ñu bëgg laa bàyyi nga dem tëdd nelaw. <laughs> Euh, Sénégal Égypte. Uh-huh. nañu sant yàlla. que bi ñu gañee match bi day jouer si match. Uh-huh. prochain coupe du monde bi. Uh-huh. maintenant nañ def attention que ne le match aller. Mmh, c'est en Égypte. 24 mars. waaw ah, xaar de yi tamit. dire li ma lay wax nañ ko takk téere bu baax a baax a baax. Euh, keroog si plateau bi waxoon naa fi sama grand Assane dinaa profit wax ko ne ko Ismaïla Sarr bu nekkulee suñu équipe problème yi day bari te effectivement loolu moo am. match bu ñu koy bu ñu demee en Égypte nañ foofu la ñuy foofu la résultat de match bi di nekk soit on fait match nul si on peut gagner on gagne mm-hmm. mais d'abord nañ positif fait un bon résultat. su match boobu moom mooy tax match bi ngay am a Dakar. yomb pour pour mun a mën yomb. parce que aussi équipe bu équipe la boo xam ne fu mu la bëgg a yóbbu. da nga ko fay Côte d'Ivoire si dara. Euh, pression merci beaucoup comment donc je pense que ah. le match le match d'aller. Mm-hmm. la ñu war a mën a njëkk a profité. pour mm-hmm. def des bons mais ce serait pas un match. Mm-hmm. facile. Mm. cette coupe du monde là du nekk mat qualification du nekk ah. match bu facile moom dem dama encore encore une fois on croise les doigts Mamadou Diallo di ñaan yàlla mu àndaat ak ñun euh, ci euh, yi ñu dëgmal merci beaucoup. Mm-hmm. sant la gërëm la bu baax a baax malgré coono bi ci wuyu si bi encore une fois félicitations euh, leen coono aussi merci. maa ngi wax aussi tamit comme ni profito nuyu Sénégal yëpp. comme li ma waxoon mm. monsieur le président nee naa ko man euh, bàkkuwuma mais bu ma mm. àndee équipe bi day jël coupe bi parce que ñun coupe lañ xam xam nga bitti soko moom mm. ah yàlla daf leen daf leen yàgg nañoo indi ay ndam dañ yàlla dañu ma yàgg mais ñu indi ay ndam c'est ce que je l'ai mais loolu moo am mais aussi tamit nañu sant yàlla que may demander aussi sénégalais yi euh, xool sedd na si ñoom mm-hmm. aussi nañu bàyyi fàttaliku lii passé nañu jël ne lii passé yëpp ci kanam lii passé yëpp c'était des c'était yoo xam ne tey moo indi résultat tey mm. parce que euh, nu mu tëddee buy boo ko buggee mu am njariñ foog nga toj ko boo ko tojul nag du am njariñ mm. toj boobu ñu toj buy bi moo indi njariñ bi tey mm. aussi di félicité comme Aliou Cissé Mouro ni ma koy waxee toujours moro laa koy owe que bravo c'était pas facile mm-hmm. mais liñ doon ut am nañ ko. nañ ko te hmm. loolu lañ doon xaar si moom aussi tamit. merci beaucoup et je l'ai toujours défendu. Hmm. pas défendu mais j'ai toujours être positif parce que. mun munu ma nekk internationaux. Hmm. nekk footballeur ba pare di def di nangu def yenn parce que bu ñu ma ko defee du ma neex aussi tamit. aussi di féliciter les jours que tout le monde. que Cheikhou Sadio Kalidou Koulibaly. tout moom merci merci <laughs> merci beaucoup Mamadou Diallo xoolal euh, Chérif Dia moom dafa bëgg débat débat ci boppam la bëgg merci beaucoup Mamadou Diallo jërëjëf léegi léegi léegi léegi dañuy jàll non mais baal ma li ma foofu dëgg la Sadio moom ah, Sadio moom ah, ah. ah. kenn kenn kenn kenn mënu koo mu fay ce que gi sama sama xarit El Hadj maa moom dañuy yabante mhm. ñu dugg biir versaire mhm. ma ne ko ok téye la double ballon mhm. mais booy nañ leen nangul ne tey ñoom ñoo fi indi médaille ñoom ñoo tax ñu am suñ médaille merci temps moo fi jël Ligue des champions. moo fi ah. jël Ballon d'or moo fi jël Coupe d'Afrique des nations keneen defu ko. kon mooy numéro un. merci beaucoup merci El Hadj Malick ñu jàll ci l'observateur ak record li ñu xëyee tey.